di wax ni démb ci ngoon la ñu jot li nga xam ne moom mooy vaccin Johnson Johnson mais loolu comme ñu ngi xaar boobu ba léegi nit ñi ñu ngi sonn ñun tooguñu sax di xaar biig fii la ñu nekk di réunion ak di jàppalante ak di jàppante ak di waxtaan ba xaaji guddi ba ñu paree li ñu décidé woon mooy tey bu ñu yeewu lu ñuy def mooy def journée de lancement vaccination bi di Johnson Johnson bi gis ngeen def nañu lancement bi ci guddi gi la ñu wootee dugg ci réseaux sociaux yi parce que boobu guddi woon na mais am nañu ay nit yoo xam ne dañu waxtaan ak ñoom ñu dugg ci réseaux sociaux yëpp bu yëgle nii tey dinañ commencé vaccination waaye tamit population def daf mel loolu lañu doon xaar ndax gis ngeen ni fii fees na dell ñëw nañu pour vacciner wu loolu aussi dañ leen ci encouragé bu baax di leen ci sant di ci gërëm bu baax di ñaan ni bu ñu bàyyi kenn ku si nekk na ñëw ñàkku mais nekk na jàpp ci loxo mbokkam wala loxo dëkkaaleem indi ko mu ñàkku parce que loolu mooy dëgg loolu tey jii moo nekk loo xam ne mën nañu dimbali feebar bu jógee fii ndax nit ñi sonn nañu kenn dematul kenn dikkutul beneen bi si des mooy comme ñu ko waxee aussi euh, démb le ministre de la santé def lancement bi fi nga xam ni moom mooy centre de santé bu Philippe Senghor ñun aussi ñu def suñu lancement tey fii nga xam ni mooy district sanitaire bu Rufisque bi ñu defee lancement bi aussi woote nañu nit ñi ñëw ñu gis ngeen nit ñi bari nañu ñun aussi ñu def ay équipe équipe yi am nañu juróomi équipe yoo xam ne ku nekk équipe bu ne ñetti ñetti nit la commencé nañu mais loolu aussi doyul ñi nga xam ne ñoo ñëw fii di liggéey am na ñu ñuy jàppale am na ñoo xam ne ñu ñuy jàppale ci eh, di bind liste yi pour nit ñi mën a dugg am ñoo xam ne ñoo ñu jàppale ci remplir carte yi pour que liggéey bi daal mën a gaaw donc non dal lañu défé fi nga xam moy mooy district sanitaire de Rufisque ci samedi bi nga xam moy samedi ñaar fukki fan ak ñeent ci wéru juillet 2021 ci li ñuy def suñu lancement pour vaccination Johnson Johnson jot nañu 1500 doses ci région médicale bu Dakar mais ñu bëgg wax ni loolu première dotation rek la ndax comme ni ngeen ko xamé vaccin yi dafa xawa euh, nek lo xam buñ ko ëndé dañuy xool kenn ku ci nek sa marge de progression parce que comme dañ ko bokk région médicale bu Dakar fukki district la ak ñaar

lundi incha allah poste de santé yi aussi dinañ leen jox ñoom tamit seen wàll ñoom it ñu tàmbali parce que lu ñu bëgg mooy nit ku nekk fi nga gën a jege nga dem fa ñu ñàkk la foofu mooy gën a yomb nit ñi ñu leen di dajale ci benn place ndax loolu aussi ci xeex feebar bi la bokk rassemblement yi dañ koy bañ. loolu moo tax lu mu tuuti tuuti poste bu nekk dinañ xool lan nga attan wala lan nga mën a vacciner ñu jox la ko nga commencé ko vacciner boo demee ba vacciner ko ba mu jeex aussi nga ñëwaat ñun aussi bu ñuy jeexalaatee ñu dem région médicale Dakar ñu joxaat moom xeex bi mi ngi ci xeex bi waaye xeex bi nag dafa metti ndax boo xoolee li nga xam ne moom mooy troisième vague bi bu ñu seetee par rapport ak li ñu daan dal ci deuxième vague bi troisième vague bi daanaka boo jëlee bu ñu daan am benn kaa ci ñaareelu vague bi ñetteelu vague bi ñoo ngi am fukki cas ak juróom donc loolu cas yi nombre de cas dañ ko multiplier presque par quinze loolu aussi nekk na loo xam ni dafa doy waar dafa dafa dafa dafa metti liggéey bi nit ñi àttan nañ ko kon nit ñi kenn ku si nekk yaa jël sa ay responsabilité boobu jël sa responsabilité mooy nga taxaw ni man du ma am corona waaye aussi man du ma wàll corona nit ki aussi luy tax du am corona li ñu gis ni moom moo ci gën a am solo mooy ñàkku kon buñ ne ñàkk ngi nii da ngay jóg ci saa si nga dem ñàkku ba ñu wax ba suba ñu wax ba ngoon wax nañ ñi ngi ñàkku ñëpp jóg ñàkku ji boobu mooy benn ñaareel bi aussi li nga xam ne mooy geste barrière yi ñu continuer di ko takk parce que ñàkku rek tekkiwul ni doo utiliser geste barrière parce que ñàkk bi dafa am loo xam ne moom lay def ci sa yaram mooy que ni daf lay aar mais aar bi yow kese lay aar fekkente ni kër gi dañ nekk fukki nit yow kese nga ñàkku fa donc aar juróom-ñeenti nit yi aaruwuñu kon dañu war a continuer di takk seen masque tant que loolu nag moo xew ci population Sénégal yëpp bu fekkee ne Sénégal yëpp ñàkkuwuñu wala ñu ci ëpp ñàkkuwuñu donc dañuy continuer di takk suñu ay masque di continuer di jël suñu ay gel donc il faut que ñu góorgóorlu jàppale ñu ci xeex bi ndaxte bu fekkentee ne xeex bi dem na ba ëpp ñu loxo dafay daanu ci kaw askan bi te bu daanu ci kaw askan bi askan bi dañuy sonn bu fekkentee nit ñi feebar nañu dem ba amatuñu fu ñu tëdd wala fu ñu dugg wala amatuñu hôpital bu ñu war a nekk wala amatuñu ku leen mën a faj oxygène di manqué wala yu demee noonu loolu bu ñu fa yeggee dafay nekk loo xam ne lu metti la te war ñu taxaw kenn ku si nekk jël sa responsabilité boo ñu bañ a àgg foofu wax dëgg yàlla yàlla ngi ñuy suturaal boobu ba léegi ñi ngi ciy góorgóorlu ba léegi ñi ngi taxaw daanooguñu te ñaanuñu yàlla daanu sax mais nañu góorgóorlu ba nit ñi bañ ñu seetaan ñu daanu parce que bu ñu daanoo dañuy ànd ak nit ñi nërmeelu te loolu aussi nekkul li gën donc système de santé bi Euh, ñi nga xam ne ñoo ko yore mooy seen ay doom seen ay rakk seen ay xarit ñi nga xam ne ñoo nekk kër docteur donc yéen ñi nekk suñu ay soxna nekk suñu ay doom nekk suñu ay rakk ay xarit nekk suñu ay papa suñu ay yaay suñu ay maam da ngeen di jóg jàppale ñu parce que bu ngeen ñu jàppalee jàppale seen bopp la te jàppale bi lu yomb la mooy bu ñu wootee ni kaay leen ñàkku ngeen jóg ñàkku ci saa si bu ñu waxee ni na ngeen takk seen ay masque ngeen takk seen ay masque bu ñu waxee ngeen jël seen ay gel ngeen jël ko ñu waxee na ngeen moytu dem lekk te bi nga xam ni bariwul solo ngeen moytu ko ndax loolu aussi jàppale seen bopp la parce que nit ki aussi bu ne la kaay sangu sa taar la la bëgg